waaw mbokk Bakkan TV ñoo ngi toog ak Max Mbargane pour mu tirer ñu bilan saison bi nga xam ne génn nañ ko mais balaa boobu dañuy bàyyi mu nuyoo Max nuyu nañ la. waaw jërëjëf euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonent mu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di la kontaane nag. Mm. Euh, yow damay mm. bi am solo. jërëjëf xaar na tontu say laaj. tontu say laaj samay laaj xam naa première question bi dañ ma ko yóbbante nag. Uh-huh. ñu ne Max dañ ko dàq seen TV. Mm-hmm. wala dafa démissionné. lan moo tax Max animé tul émission lamb à la Sen TV. xam nga Sen bi euh, Bougane. waaw mi nga xamante ne nii mooy moomam télé ba. moo ma copte woon. Mhm. ma ànd ak Malick Thiam ñu def émission grand combat. waaw bi Malick bàyyee dem ITV. waaw def naa fa quelques émissions. waaw après ñu arrêté émission bi. ñu arrêté émission bi. Euh, ginnaaw moom moom yëfam na ko arrêté. waaw da ngay dem dellu rek ci waar wi. mais wax nañ la lan moo tax mu arrêté. non non xaw ma am na ay détails xam ne bëgguma ci dugg. ndax euh, bu doon dafa arrêté sama relation moom dagg. Mhm. même bu daggutoo bu daggoon sax. Ah. du wax naka sa dul noonu rawatina sama relation moom. Ah. dara daggu ci ba léegi ñu ngi seex ay relation yu nice. Mm. bari na événement yoo xamante ni sax daf may woone ma per jàppal ci li yónnee ma xaalis. Mm. ñu seex relation yu nice. Mm. te su ma juumul sax ak face à bi ñu mujj def. Euh, direct bi mujj def ci combat Bombardier ak Balla Gaye waaw ñi ngi xalaat sax reprendre émission grand combat reprendre émission euh, grand combat ma ci am yaakaar daal ah. parce que jot nañ ci wax mm-hmm. te xalaat naa ne euh, loolu dina am mais ça fait ñaari at ñu arrêté ko de je pense ah na xam nga bukaan benn instant doon naag bool production dugg ci làmb xëy na foofa la ci amee ko naqari ci wàllu làmb xëy na looloo tax benn instant gisatul boppam ndax télé ba dañoo arrêté woon activité làmb yëpp waaw la ah non yoo xam ne émission bi neex na nit man ne neexoon na ma xaw ma. non non ñëpp la neex làmb. Ah. ku ma daj ci télé doo sàppe. Ah. tàgguma sama bopp. Ah. ndax làmb laay waxta aw ma naa feq. ku ma daj ci télé. wala ci site doo sàppe te pare loolu moom dëgg la. mais mais ku mel ni yow chroniqueur bu mel ni yow amul émission làmb loolu jaaxal na nit ñi de. ah non xam nga problème bi moy à Top FM mang fa animé émission. la non télévision la ah, Dama ñew dama ñew. waaw Sénégal 7 mang fay def émission ba tey. waaw mais lamb. Mhm. ci télévision. Mhm. amaguma émission mais xalaat na né yag dara dinaa am émission té damay bëgg nag bokk ak yow. ndax mhm. bokk bu yow émission day neex. voilà Ana xana baaxee ay couture daf la bàyyi sponsorisé. Eh, non non man ba léegi moo may ñëwal. ba léegi mo ah, lay ñëwal Mom xel tailleur yi ma bàyyi ak moom. Ah, waaw tailleur yi ma bàyyi ak mom. Ah d'accord. gisoon nañu gisoon nañu tamit sa duo ak ak Rayba lolu diw boobu yàggul de. waa xam nga boobu it euh, raay moom a copte woon ñu jaare ko ci Luc Nicolaï. waaw muy ëttu làmb. Hmm. Euh, mais ñu dem tuuti émission ba demul. xëy na hmm. am na bëgguma dugg ci ay détails. waaw mais am na ay kàddu yu ma seq ak raay kàddu yu ñagas. waaw te man damaa bëgg cër. Hmm. waaw lu man fi am moom boo ma joxee cër mën nga maa def loolu ne. waaw. Euh, gisoo gisuma fa sama bopp ma na ko man dootuma ñëw. waaw ah. ah, parce que wax naa man kàddu yi ñagas. Ah. mu woowaat ma ma defe ne day présenté ay excuses mu ne ma suba ban ma ngay dem. waaw gisuma fa sama bopp te man dama bëgg cër. bëgguma dugg ci ay détails. ma daal di arrêté quoi. moom nag moom nag sama rakk la ba léegi ñu ngi seq jàmm. mais man damay bëgg ku may bokk rek. nga di ma jox cër. nga mm-hmm. di ma jox cër ana Bombardier. Bombardier mi ngi fi. Bombardier bu la joxaatee licence di nga jël. ah non xalaat naa du ma joxaat licence. Euh, xalaat naa ko. Ah. ndax li ñu ànd lépp su ma mënee jox licence ba àdduna yëpp xam ko. waaw signéeru ko benn combat mu xëy nangu ko joxe ko keneen. Ah. dama koy ñaanal rek mu yeggali ko te yàlla defal ko jàmm. loolu daf la métti de. non non métti ndax man ku am Siteu ak yenn booy yu mel ni Siteu. Hmm. non beneen bër boo ñàkk du la naqari. Hmm. dama koy ñaanal rek yalla defal ko jamm mom suma rak la nim ko defé moo neexul wala lan la doxali ni parce que bu débuté ma ànd ak moom ba doon roi des arènes waaw tay pap jagañu man maa joxon fa Yéri waaw pap jagañu hmm. mais pap ja yor licence am magam la xel nangu nag hmm. ñu jox ma licence bi mu ne ma nag yaa ma dugaloon ci lamb ñu and bama doon roi des arènes tay sama carrière ma nar ci and ak yow ñu bayyi waaw loolu dafa rafet waaw mais jotuma ko signer benn combat mu jël licence ba jox ko keneen. jox ko yàqul sama relation. mais dafa trahir kon. non non du ma tudd trahison. lan la la yàlla non du war naa bàyyi mu sedd. xëy na santage ba ma war a am ci moom xëy na du sama wërsëg. pourcentage wërsëgu keneen la. Ah. damay bàyyi rek mu sedd. Hmm. ndax man yooyu. Hmm. yàlla noppi na. mës lek lu bari pourcentage bari ci Bombardier non man ci wa ngad la bok Bombardier mako accompagner musuma lek ci mom pourcentage dañu andal comme ni may andé xalé yi ndaw yi rek ah. xalé yi may formé hmm. bañ dégg daal yi dëgg la te lekkuma ci ñom santage passion la hmm. bu la ci kenn nak lamb mom da ngay hmm. dem ba bàyyi di jappalé say rak amna ci ño xam ne dañoo conscient ñom toujours dañu yëkëti xaalis dañu jox xam coono bi ngay daj ci ñom mais ñeneen ñi même buñ joxul ci yow dara da ngay continuer di leen jappalé ndax sa bëgg-bëgg mais kon doto conseil bombardier ci combat non non non buma ma xalaat ne naa la photo boobu ñu ànd mu ngemb man ak moom ak ba man jee moom ko yónnee li ma laaj grand fii kañ la mhm. man du affaire u chantage laay jàppee nit da nga jox cër rek ma ànd ak mhm. yow mais bu la waxee bu la nga nga conseil non déggoo li ma la Tapha Tine mhm. dañuy déggante Tapha Tine dañuy di déggante boo déggee déggante bërki démb sama sœur gaañu na mu mu mu jot mu gis ma estati ko waaw mu woo ma di ma jaalee barki démb bi leen Thialis di joxaat xaalis. 4 mhm. millions moog booy ñaar. waaw mu ñëw gert ne dañ koy jox lépp. waaw wax ak moom. na ko fiis mhm. euh, toogal nga jël bor luñ ci wàññi rek jëlal. mu déggal ma. man relation la am ak ñëpp. jàppale kon Thialis jox na leen euh, li des. non non non des na mais am na lu mu leen jox bu jox man la woo ma woo leen ño ma woo ñaari euh, mbër yëpp. ku nekk jël 4 millions 500 waaw ci ne am na non 4 millions ku ci jox nañ euh, leen yoreel te leen danaa leen fay seen hmm. moo lay wax ne man jotewuma ci kenn dara. Hmm. comme ni ko yeneen mbër yëpp di defee. man damay dugg ci làmb sax. waaw ñaari mbër war a bëri ku daw ñëw ne père ñaanal ma. Hmm. léegi Tapha Tine Bombardier da ngay nëkk. ah non déggoo li ma la wax ginnaaw ba man tëgguma ko. waaw organiser ma ko bokkuñ sama écurie. waaw damay jàpp sama jàmm. ku ma woo wax ak man nag ma wax la li ma xam. Hmm. waaw mais combat moom que le meilleur gagne. que le meilleur gagne mais dafa dangereux si bombardier de. ah non combat la combat la rek xam nga bombardier euh, boromu fit la Tapha Tine borom fit la gaynde la du ñëpp ko ñeme. waaw mais bombardier moom kuy dem bay defee MMA. bombardier lu mu am lu ne fitam moo ko ko may. waaw mais combat boo xamante ne combat bu métti lay doon. sikan kan. non non mën na métti ci ñaari mbër yi. Hmm. ndax combat bu njëkk ba. Hmm. xëy na bombardier daa gën a naaj mais ñoom ñëpp a gaañu. waaw waaw waaw bombardier moo gën a gaañu nag. waaw mais ñoom ñaar ñëpp gaañu boo fàttali ko saa ñuy dem médecin. waaw ñoom ñaar ñëpp ay demandoo mais bombardier fay gën a yàgg. dañuy faj tuuti tafaatin rek bàyyi ko bombardier mu la ñuy mooy gën a yàgg. Mm. ndax moom moo gën a gaañu. Mm. mais ñoom ñaar ñëpp a gaañu kon mm. ñaari jàmbaar lañu. combat boobu dina ni mu mel ni mu meloon 2013 dina ko melaat. non mën naa mel ni ko raw sax. mais xeex ba mën naa bañ a yegg sax noonu. parce que hmm. euh, foog war war cee am. Hmm. parce que boo jëmee mag sa expérience day gën a yokk doo toog rek di dóorante. Hmm. loolu bay débuté la nga yor deretu xale. waaw mais day toll moment boo xamante ne nii. utiliser bëre bi day gën sax nga topp rek di xeex di dóorante. waaw dëgg la waaw. mais combat la boo xam ne daal kan mooy sa favori. non xam naa ne daal euh, euh, favori bi du yomb ndax ñoom ñaar ñëpp. Euh, ñi ngi wane seen bopp te ñoom ñaar ñëpp bëgg combat bi xam naa ne daal ku ci gën a pare mm. ku ci gën a pare mm. ëpp entraînement gën a pare gën a bëgg combat bi yaa ëpp avantage mm. combat la boo xamante ni ku ci sàggane entraînement fonkooku mën nga am loola naqari mais gisoon ne Tapha Tine mooy favori moom mu mujjee daan Boy Niang Bombardier jóge defet si si si Eumeu Sène non man nga ne mooy favori ndax ci victoire la jóge te moo gañe woon waaw mais Bombardier li tax ñëpp bàyyi fi Tapha Tine mu jël ko waaw am na lu mu bëgg a même même Tafatine bo avantage légèrement lay doon. ci bu respecté ay entraînement Bombardier mënoon na jël hmm. mais tant ñepp bayiko fi mu jël ko am lu bëgg hmm. ak Bombardier Bombardier eh, la déggal. Ah non Tu ma déggal Bombardier dama ma déggal ndax Bombardier bi mi débuté. Hmm. benn magu lamb bu xam. mag Boy jibi maa la yàlla ko yàlla yërëm mm. kenn nekku fa te ñun doon dajeeg mm. ay staff yu laan doon ma ànd ak moom ba doon roi des arènes mm. parce que xam ne ne man am na lu ma xam ci làmb daf ma doon déggal bu baax kese bi gën a parce que làmb du entraînement rek waaw bu làmb jeexee ñu toog ca kër gi di waxtaan léeg-léeg ñu jóg wane ay action delluwaat toog loolu dafa bokk ci combat te dañ ko daan def di partager lu bëree bëri bii bëri Tyson maa ko doon Tyson léwaatoom dafa yéex day wàññi boo gaawalee sa léwaatoo dox ci kaw mën nga am lu bëri donc nga xam ne moom ku daan déglu la hmm. Tafa Gueye maa ko noonu boo koy song boo ko dawalee ndax day mboot Tafa mais Yékini moom da leen teewoon waaw Yékini xam nga day mbër moo xamante ne nii euh, xam ne ne Bombardier ndaanaan la ñeme na waaw indi expérience hmm. waaw moom expérience la daan indi waaw expérience la waaw